waaw waaw ñetti ñetti ñetti ñetti wala ñeenti baat rek laa ciy wax mooy que des fois da ngay gis ci commentaire wala ñenn wax ni sax ay noonu ndéegee la moo la dugal ci papa ay ndéegee la moola bàyyi si papa et cetera et cetera li ko bàyyi si man ak li ma bàyyi si moom engagé wul kenn man mii la engagé ak moom leer na d' abord. beneen bi ci topp. maanaam ma siy tegaat. benn nga waxagul waaw. waaw muy ñett moo ma bàyyi si ndéegéey. ñett moo ma téye si ndéegéey. ñett moo ma dugaloon ci ndéegéey. muy bëgg ko te yàlla tax. yërëm ko te yàlla tax. gore ba keroog muy dee wala may dee. mu teg la non benn. beneen bi topp. sëy yi nga xam ne mu ngi am ci yàggul dara ko maanaam. yi am te yàggul. waaw am te wala yi nga xam ne. ay quatre ans cinq yi yi mujj yi nii quoi. xam nga. maanaam. il fallait que ñuy bàyyi xel ñiy jóg dem jàkka ja takk sëy bi. ok il faut gars yi di ci bay xel. ndéggéey fi ñu takkee sëy bi ak ñi takk sëy bi. Mhm. ñooñu lañuy ñuy ok ah. ay caaxaan du ko dindi waaw ñooñu la ñuy seyal ndéegay mënuma jox lu ma mënul am mënuma yóbbu fu ma mënul yóbbu sama bopp mënuma defal lu ma mënul defal sama bopp man pare amul lu gisul ci àdduna mais nit dafay am looy bàyyi xel mooy tax ngay def li nga xam ne moo la war soo bàyyiwul xel li la war rek li ngay def yow doo ci bàyyi xel rawatina waajuram bu góor mm-hmm. ak sama waajuru góor nekkoon ay xarit avant may xam ndéygéey mu sàmm loo nag sama diggante ak ndéygéey mm-hmm. na arxuraanul karim maa ngi koy soog wax nii yàgg naa ko ko wax nag mais suma biir néeg ak moom la yem mm-hmm. ndéygéey fi ma toll ak fi ma ko jàppee ak li tax ma jàpp ko tey su ma ko fekkoon a góor ci biir néeg ma àndaat ak moom mhm. parce que li ñu boole moo tax mhm. macha allah kon gars yi nañ ci génnee ay làmb mhm. wala ay détails pour ma tënkale xam nga la moo tax ma yegg ma dem ci bii bi direct pour ñu xam ne ndéegee lu ñu tàqale ci suñu boroom lay jóge waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp